wax ñu jëlee neppaat musical kaa dalalal sa gan ah. déedéet dafa am loo xam ne rek dañ koy waxee. te nga wax balaa sa temps bi di jeex am nga sept minutes ko waxee ci kaw parce que fan ko looy wax ci kaw fii. dara xewul set la demal. sa baay sa baay ah, ñëwee na ngay xuloo. ñëw gannaaw waxoo man la sa baay surprise baay Thiès <laughs> Dakar surprise ñëwal si sa papa nga invité na nga def mbaay macha allah maa ngi nuyu ñoom Umar mm. di nuyu suuy bu jërëjëf suuy bu ah papa ay nuyu nañ la waay daa di la di di nuyu soxna Biti su sa yaa lay nuyu mbaay ah su gëy eh? baaw naan de lañ bëgg a waxtaanee rek. baaw naan delloo mbuum ca mboy mboy ga. baaw naan mi ngi taw hmm? dara maralu <laughs> fii dara ñëw toog te amul lu mu waxtaan. jomaay naan duggul. noo bëggeewul noonu télé. ah waaw waaw léegi. Hmm. nan nga koy organiser baaw naan bi. waaw di fàttali président Diomaye rek di ko ñaanal ak le premier ministre. ah yow àndaloo nag àndoo woon ak àndoo woon su kay. Mhm. ñoom ñi nga xam ne ñu ngi soog jot réew mii di leen ñaanal waaye mi ngi doog a ñëw mu nga bi ma mi ngi doog a toog nag vraiment. ñu ngi leen ñu koy ñaanal mu fi ñëw mu fi doog a ñëw. Mhm, mosu fee ñëw waaye ñëwaat gëj na fi. élection yi rek. Mhm. patriote doon patriote. dëgg dëgg la Pape. Ah? jàppoon nañ ma sax. jàppoon nañ la. ngi fàttaliku. Pape fu euh, ma jàppee R100. ñaari R4. dëgg ne ma doo fi doon patriote ma ne leen patriote rek laay doon. <laughs> patriote rek laay doon gis vidéo la ci papa. boobu dama doon def dégg nga lëfe cagnotte. cagnotte cagnotte lañ doon lëfee. ah vraiment lëfe de fond bii ngay def da nga koy baax. ndax Sonko ma ne leen man Sonko jaral dama jox sama bakkan su gaayam hmm. <coughs> bi loolu amee ñu yóbbu ma ci commissaire su koy commissaire toog ma toog ñu enquête ma ñu ne ma yow cocktail Molotov yi boobu defar naa ci juróom-ñeent fukk <laughs> juróom-ñeent fukk cocktail Molotov foo ko defaree ca kër ga <laughs> yaakaar ci <laughs> lakk daal ñaari oto jarul non non gars yi nee nañ tey la wax neex. même non ba wax jafe moom sañoo woon ñëw fii papa di wax ay cocktail molotov. lii su koy wax naa ko man nee nañ wax jafe woon na tey la wax neex. Adja information bi ma la jox sax mooy procureur bu bees bi ñu fal. waaw nee nañu mi ngi gëstu ñu doon taal cocktail molotov yi parce que itam rupture la ñu woote. très loolu information yónnee naa la ko noonu. ok ah waaw d'accord. ah cocktail fépp yëpp yu Sénégal day lijjanti loolu parce que nee na rupture la ñu woote.

ne leen yéen da ngeen a yaakaaroon dama jël coupe thermomètre bi pour lan lii essence la dama koy def ci biir oto bi daal di taal mu taal. dëgg la yow nekk woon di lim léegi nombre de cocktail yi nga defar. Hmm. procureur foo ko sànni ji xam bu dëkku bi sànni ji. ah da ngaa sànni ji cocktail molotov bi. fan comme dama def nag comme dama essence bi ci oto laa ko def ci oto bi laa su kay. li dellu di wax li président jomaa yi di ko ñaanal waaye di ñaanal le premier ministre Ousmane Sonko. li nu def fi nu daal ku fa jaar taqaban loolu yàgg nañ koo wax fi ma jaar ku fa jaar taqaban waaye dama ne ñii ñu jaar ku fa jaar taqaban nii <laughs> nu yoree réew mi nag faw mag mu am xam-xam am xalaat jege leen ku mel ni man ànd ak ñoom ci njekk ak teraanga xamal leen teraanga doon bat géwél Cees di leen wax ne leen gàmm gaa ngi ñëw nan ma boole ci délégation bi jëm Tiwaawan balaa ñuy dem ba ci biir naan leetar ba ñëwut ak ñëw naag def na nii ak def na naa premier dem na ba pare. ah premier ministre dem na. <coughs> kañ la dem. gisoo ko Tivaouane barki démb. premier ministre. Hmm? de. Hmm. demagul waaw. dem na. demagul demagul demagul kii moo dem. président war naa dem Kaolack président hmm? war naa dem Kaolack. nañ ma ci boole ci délégation bi. bii dem Kaolack waaw. kañ kañ Kaolack wala Tivaouane. nañ ma ci boole. <laughs> nan ma ci yow nga ne da ngay baawu naan sax yow baawu naan woo xam ne yow ba tey xamoo la koy <coughs> yow nga ne coppiteel mën a taf yëpp yow yaa ko defal kër deet deet coppiteel mën a taf ah, papa demoon ba créer Macky Sall aw bàkk rëw rës waaw yow créer yow tam demoon ba créer Macky Sall tëgg tey nga ñëwaat yi ñoom Ousmane Sonko loolu yàggul papa ma xool loolu yàggu fi du ñu fànn kenn di ko jeexte loolu mën nañ ko génn ci artiste bi xaw ma nu mu ko daan defee rëw rëw boobu jomaay laa ko tëggal réew rëw ah ah ah rën gin gin rën gin gin rën rëste gin loolu da nga koo tëggoon ngir jomaay man de waxuma woon loolu man jomaay bàkku séeréer lay xaar papa yow <coughs> caméra baa ngay pipi bi de maa du bomb. déedéet du dara du fii sax <laughs> ah ma nga fële waaw wax nga waa léegi papa sa temps jeex na kon jógal. Hmm, gis nga ko fii faaw mu ñëwaat. sa temps jeex kii dañ koy defal intégral El Hadj Mamour Mbaye. temps am jeex na sax. intégral waaw sa temps jeex na koy defal yow foo ñu defal la intégral El Hadj Mamour Mbaye bët gëwël. ma wax sama jaar jaar wax sa jaar jaar. 2021 ba 2023 voilà voilà ah. Ah. ak bu ñu la ah, invité 2S kii Alaaji Taal Ngol Ngol invité la ko woon nga toog fa yi wax ndeysaan yal na ko yàlla yërëm loolu faaw nga ayca mi ngi noonu ñu jaajëfal la bu baax a <laughs> baax Mbaye Daane jaajëfal également sa invité waaye di remercier ñu nu bokkaloon plateau bi ak ma jigéen Diop mu fi jógee sànq ñu koy jaajëfal di jaajëfal téléspectateurs yi doon suivre jox leen rendez-vous jeudi incha allah suba su kaa Mbaye Daane ci kattanu dina ma wuti ci bile taw boutique solution ñoo leen doon may seen émission Taku Show